dafa am ay recommandations yoo xam ne yeneen dëkk wu sax pour jéem a defar foofu ak seeni ndaw yi loolu boo ko yow ne damay ñëw fii jëkkee ko Ziguinchor bu ma ko jëkkee Ziguinchor association bu ko ko def ak quartier transit quartier yëpp dinaa ko def parce que état mën na am jumtukaay yëpp defar ko Sénégal bu dee loolu rek yeneen dëkk yi nañu ñëw di roy waaye problème bi mooy jëfe buñ koy jëfee it yéexaay bi man ci ngeen soor yëpp ino rapide lañ may woowe parce que nit dangay ngay jaxlaf am na loo xam ne mënul xaar xale doo ko jox stress bu xëy mu ngi seet lu muy lekk lu muy def naka lay def jàppale ay waajuram loolu rek feebar la nit karjaat nit karjaat nokk na fi nit dee fi ndax problème te fekk solution mën nga ko am mi ngi sawet wet loolu laa ne il faut ñu vulgariser ko di ñëw di waxtaan ak xale yi ubbite ko si bu ko jëmale feneen waaw man man budul dul woon sax xew-xew yi am Mbàkke daa nekk sax xëy na du ko tudd mais démb bi ma xoolee image ak am aussi quelques informations dama yaakaar ne mënuñu bàyyi noonu

naan dañ ñuy ñëw jàngal ni ñuy waxtaanee ak dialogue entre nu fii dara mënul am te mënuñu ko waxtaanee dialogue politique nationale am na fi kan moo nekkoon si boppa bi du sam papa ku baax ki muy faamare Ibrahima Sagne Sagne amul lu mu mënul régler ci dëkk bi dara mënul tax ba ñu mënuñoo toog ñu waxtaan ci doxalinu réew mi suñu responsabilité la ah. parce que ñun fii la ñu dëkk demuñu fen émigré wuñu Sénégal fi lañuy tok mais d'accord ñu lu mel na Sonatel ñëw diko ko di saccagé sen champ parce que fofu problématique biñu ñu am tey mënuñu né xeyu ndaw yi seen champ buñ ko tëjee ñan ñoy perte du kat yi fa né ñom ñoy tok Sonatel buñu xolé impact bi ni lañuy tëj agence bi ñan ñoy perte du kat yi ba paré ñu né dañuy